jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ba tey ci caaray géej seet si fi kenn koo xamante ni làmb gëj nañ koo gis waaye macha allah ci bëre macha allah ci xel macha allah ëpp ko fuuf taxul nga dàq koo bëre ëpp ko fuuf taxul nga ëpp ko doole doon na koo xamante ni mun naa ne xale la ci làmb waaye gëjuta bëre ci làmb ndax palmarès bi mu def kenn du ko présenté dañ koy bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu nuyu ko kooku mooy Ahmed dem Ahmed dem tey moom lañ seet si di waxtaan moom ci làmb Ahmed ñu ngi lay nuyu. waaw alhamdulilah gannaaw ban sant yàlla julli si yonent bi di gërëm suma ñaari waajur di leen daral waa wasaare làmb man na ma wax ne gëj naa fi gëjuma fi parce que daaw rek laa bëriwul daaw rek laa def benn saison blanche daaw jéeg laa bëre ak Bruxelles bu yàlla may ñu ndam. kon donc gëjuma si noonu quoi waaw mais nag fi mu ne nii ñoo ngi si kawam bu baax a baax ñuy waaj. daaw am na lu ñu seetlu mooy mbër yi def année blanche surtout ponkal yi dañoo bari trop. waaw danoo bëri parce que xam nga gars yi da ngay waaru soo mbokki mbëri yi dañoo mën a taamu trop dañuy moytoonte xam nga loolu rek moo xaw a yeexal affaire bi man nag ba ma toogee laaj laaj ba sonn sama morom yi nangu noo bëri man a ah, si laa nag taxaw. booy bu fi pourvu am fulla rek ma jël la bëri yow fi mu ne nii amatuma lu may toog lu may xaar waaw. dimanche boo toog te bëri woo ñàkk. pertement la pertement la dimanche boo toog rek yaa ngi perte looloo tax nag bi ma kosaatee xool laa ne amatuma dara lu may xaar. 45 mhm. ans ak gaaw ci làmb. ak gaaw. <laughs> mu ne la xale laa xale laa te nangu ñoo bëri. nangu ñoo jëlante seen biir. ah la de affaire bi moom da ngay jékki toog ba si yàgg CNG oo la ne la kaay nangu sa licence ku fi nekk ku fi toog di xaar yaa ngi perte de. ñaata combat nga bëri Ameth Deme ak ñaata ndam nga ci am ñaata defet nga ci am. waaw fi mu ne nii maa ngi ci dix neuf combats trois defet rek laa am dix neuf combats kon gars yi lan moo tax du nangu na ma. parce que déggal loolu amul benn mbër boo xamante ne war naa nekk ci làmb am licence Ameth Deme bëgg a yow te doo bëri ak moom. trois defet kese kese laa am. kan la daan. Moussa Dioum fi daan. Mhm. Malaw Seras yooyu sax ma ko waxul woon xam maalo Seras ak kan Moussa Diouf Malaw Seras ak kii ki ndëkk Géejawaay kii numéro de mooy plané sax tur bi waa Géejawaay la de Alioune Seye numéro de Seye numéro daal ñoo fi daan. Mm-hmm. waaw mais amul benn mbër buy taxaw fii. Mm-hmm. am na dem laaj li ngay bañ a bëre ak moom man damay jàpp naa bi soxor la xamul mel ni yee fii ma toogee di ko fi lim dinaa lii. lamb ji xam nañu. <laughs> Bruce daan naa ko daan naa waa kees bi. non non kii ambulance. bu kees daan naa ko. daan super jamono. bëri na yoo xamante ni tey <laughs> tey su fi doon lim gëmu mën a dina jeex ay brise de mer ay ay. bëri na de. waaw fi mu ne allah. xam la moom a yéem. Mhm. mooy Ameth Dème parcours bi mu def ci làmb ba tey fi mu toll nii fi mu grand contre petit bi ñuy wax ci làmb waroon nañ faa mën a dégg Ameth dem te dégguñu ko fa lan la te yi dañ laa ragal dañ lay teggi wala qu'est-ce passe. ah man de xaw ma lan moo tax gars yi nanguwul waajal sama combat noonu la méttee taxawal. waaw sama combat vraiment grand contre bi man maa ngi si parce que boo xoolee sama sortie yu mujj yee booy laa bëreel. damaa dem ba wàccee sama bopp di bëre ay ay ay kii ay kii waa kees bi mu nu mu tuddati ambulance bu kees xam nga bëre naa fi ak kii ñoom kii feu rouge bëre naa fi ak boo yoo xamante ni daal tey jël naa risque boo xamante ni bun ma daanoon rek kon man dama ne damay suulu ndax loolu lan moo ko waral soo morom yi may laaj ñu bañ a man. xam nga ay Modou Anta fii ah, ay ay bu garga garga ma un ñooñu par force damaa war a bëri ñoom ñooñu ñooñu ñëpp maa leen ëpp ay combat maa leen ëpp ay victoire kon donc affaire bi lan la lan moo tax ñoom ñu may teggi di ma fi bàyyi. non yaag garga mboose combat bu jaar yoon la yaag Modou Anta bu Thiès combat bu jaar yoon la. nag ba sonn boo dama dama mujj jël Valdo pour bañ a toogaat rek ndax daaw dama def année blanche te année blanche moom boo ko defee defaat rek waaw loolu moom erreur la quoi mm. léegi nag ma maintien si début saison bi nii rek incha allah. Valdo daal maintien la daal. du question loolu sax man man sama bopp laa gëm dama ne. man dama man bañ a toog année balance ma ne naa jël Valdo maintien si am naa si droit mais Valdo champion la ndaanaan la déggoo ma ne la damaa constaté ma xool ne toogaay bi pertement la. yaa ngi bi ma laajee sama samay morom kenn nangu la bëre ak man ah ma xool nag boo yi nga xam ni pour veneen am nañ ful la ma jël leen gëj gis giñ la gëj a gis ci làmb ñu ci bari nee nañ da ngaa tukki génn dem nga tukki nga kenn gisatu la parce que dimanche jot ba ñu jékki-jékki rek gis la nga wàcc Iba Mar wala nga wàcc arène nationale lan moo waral loolu làqatu bi. loolu bi non laaxatuma maa ngi fi de parce que sama booy kuy bëree ku ne man maa lay yóbbee saat maa ngi fi de tukki wu ma dew ma fenn tukki woon naa ñëw na mënoon na maa def comme sama morom yi mais defuma ko dem naa États-Unis mais damaa ñibbisi. te sa te su ma delluwaatoon tamit damay ñibbisiwaat parce que waaw Sénégal la làmb laa gëm si laa nekk di dóor daal mais maa ngi fi sax chaque dimanche sama booy bu ñuy bëre maa leen indi te man maa ngi si suuf dëkk naa gars yi ñëw naa foofu dëkk mais xam nga di dëkkante yi nekk foofu di dóoranteeg yooyu yooyu moo ma si doon fekk comme gars yi dinaa ñëw daal dëkk la bon boo ma nangoo tàllal loxo promoteur yi bu la ooyee tamit doo bëre ah damay obligé taxaw rek yóbbu samay booy bu bëre daan lu ñu moytu xeex bi wala mën bëre bi wala technique bi lan lañ ciy daw. gars yi nag ñi meenu lu metti quoi xam nga Ameth moom mooy combat am du yomb. waaw man moom vraiment ku surul entraîné defar sa xool bi boo xamee sa bopp rek doo jël Ameth dara. xam na ci dara. loolu nag mooy problème mais mbëri tamit dofunu ñoom dañuy xool yoon wi nuy jaar quoi peut-être loolu la. Mhm. nga def loo xamante ni sa combat yaak Brésil yi ñu bari dañ la cee simil sàpp ndax xam nañ ni Ameth dem mi ñu gëj a gis fam ne ba tey ma waaw affaire yi liggéey la rek liggéey ba woo koŋŋ gars yi moom boo bu xamee ne woo nga koŋŋ dañ lay teggi de <laughs> mbëri da ngay waaru. ñu ci bari pour ñoom bu la Brise li jàppee sëq sànni waaye bi ngeen dalantee keroog xam nañ ni macha allah ëpp doole. waaw affaire moom liggéey la rek ah, yaram moom bokkul ak doole quoi loolu mooy problème lool tax ñu bëri nag bu ñu ma gisee dañ may xeeb mais bu desul ci géew bi ngeen xam na lépp dëgg la gars yi moom xam nañ loolu mbëri xamante nañ waaw mais fi mu ne nii nag maa ngi waaj combat <laughs> damay préparer sama combat ak. Valdo Valdo. Mhm. waaw si yàlla mayee ndam. Mhm. ma taxaw laajaat ci gars yi rek bu nangu la bëre man ma jëlaat ci booy rek. waay duggaat Fass dugg Fass naa fa kii papa rek magi papa ji. Ousa Saw Saw. Mhm. Fass dama fa dugg deux fois daan naa fa Ousa Saw daan fa Bruxelles. papa saw laaj naa ko ba sonn mais tamit gars mooy loolu quoi. mais comme na nga nekk ci maa sama xel si ñi ma daan ñëpp. waaw parce que ñi ma bëreel daa bëri ko xam ni mu mel ci bëre. technique mën a bëre nga jàpp ko daan ko doo ko doo como ci lamb. te bi muy wow koŋŋ nag laa ko jàpp daan ko bi muy wow koŋŋ gaa yëpp mooy loolu. ah man it nag tooguma fi rek ba booy buy fële rek ma jël ko de <laughs> dégguma la Serigne Ndiaye kooku mbër mbapat la wala wala waxoo bëri naa ren. ay bëri arène bëri bër ki démb euh, kii li door door ko mu la fi am arène. waaw ah. am na quatre combat. pas sana moo fay duggati ay ay ñan lay doon ay ay Papa Sow. waaw ah, waaw comme te daan naa ma. saw moo la dese. ñaari mbër ma ma daan duggaat kay mais comme damaa yi préparé combat naa bàyyi ba combat bi jàpp. moo sa diggante ak Valdo maanaam boo mooy njër. da ngay waaru da ngay ne fii di tudd ay ñu lay kal fii. di la waajal di ma waajal dama leen tooñ rek. <laughs> yaa Valdo mu doon combat boo xam ne ñaata séance ngay na par jour. man deux fois rek deux séances rek. waaw xam nga rek matin soir daal laay def. lan moo tax nga choisir jël Valdo ak Valdo ci li mu jóge bëre am combat yoo xam ne da ko gañe am combat yi mu ñàkk am loo xamante ni làmb doon nañ ko séntu ci moom mu doon xale bu mën bëre waaye fi ñu ko doon séntu ci làmb làmb gisuñu ko foofu nga jékki-jékki jëlaat ko da ngaa pare pour tàllal ko loxo mu jóg wala danga nga koo pare pour rectifier ko. non non Valdo da di champion rek. ku nekk xamante ni champion d'Afrique la. mu nekk ndaanaanu bërekat. ma xam ko bu baax yaa ngi te man damay sawar di bëre ku xamante ni dafa mën a bëre ndaanaan lay doon loolu kese la du dara loo xamante ni man gisuma ne moom moo ngi si suuf Boldo moo ngi si kaw parce que si victoire la jógee. man daal damay xool booy boo xamante ni mën naa bëre ba bu ñu taxawee bëre mu neex bu ñu xeexee mu neex te moom sama sama yaakaar book mais kuy analyser làmb xam la xam doo xam nañu combat boobu du am xeex bu ngeen ko njëkkee du ngeen ko mujjee. waaw parce que lam lamb bëre lan wax tax ma xalaat ne bu dina neex quoi si bëre dinañ bëre ba waa Louga kontaan. waa Linguère Linguère yaa. na kañ ngeen di bëre. le 8 mars incha allah rabbi. bisu jigéen ñi la. waaw mooy comme ni ma ko waxee foofu rek bi ñu defee jàkkaarloo nee naa leen incha allah rabbi comme te bisu jigéen ñi la drapeau bi ah naa ko indil sama yaay rek. ma jox ko cadeau. waaw incha allahu rabi. ah ñaar de xam naa ne ku ci nekk. waaw ak soxna si. <laughs> yéen ñaar de xam naa ne ku ci nekk bëgg la ko yóbbul soxna wala seeni waa kër. non incha allah comme te naa ko maire bi dinaa ko jox. incha allah rabi. Valdo lu koy daan. ah entraînement am doole mën a bëre. loolu la de. fulla ak fayda comme danaa naan la moom. ci làmb. non mystique ay deuxième la de ah man moom mystique moom ay deuxième laa ko jàppee si la bokk nag moom dalay mottali xam nga may la courage may la yokk la confiance mais affaire bi daal entraînement mooy paie. Mm. mystique mos na laa jàpp ci làmb amee dem. ah non non si làmb de non non wax dëgg yàlla suma daanoo rek damay jàpp ne daanoo ñëw su ma daanee tamit ah damay gëm yàlla ne rek daan daa ñëw mais nag mystique bi tuuti la si. kon importance mystique ci làmb du dara. am na ñu ko gëm 100 pour cent de mais man moom 99 pour cent yëpp entraînement la. waaw man man bokk sama côté 1 pour cent bi moo si mystique. loo déggee mbër yi nga xamante ne bu ñu amee combat na ngay dégg ñu am la combat bi def naa ci cinquante millions ci mystique wala def naa ci 40 million pour mystique deseetuma dara te bu ñu ñëwee ñu dóor leen ñu nelaw. ah loo gis téere yi la ñuy mujjee di dindi di sànni. bu ñu sonnee loo gis ñuy dindi di sànni. te paas na nay kilomètre dem uti kon kay xam nga ne kon entraînement mooy paie ñooñ ñi ko siy def léegi bàyyi nat ka ah seetlul rek ña ña daan wax naan def naa si ay cinquante nangam million a ah, arrêté nan ka de maa la wax li parce que tey sëriñ ba nga gën a yaakaar Senghor gam lay jox ko déggal ma la combat bu passé deux minutes sëriñ amatu fa amatu fa yoon deux minutes laa la wax de su ko weesoo rek sëriñ amatu fa yoon sa jom ak sa fulla ak li nga entraîné mooy feeñ. mais mbër dina la suuraale ci mystique nga fël ñu ne ah Ameth Deme mii de am na ngemb wala mystique bi bari na xaaral ma suuraale waaw sa ah man de peut-être am nañ mbër yu koy lii yu koy def man de duma soorale nit ci mystique man moom du ma la sóoraale si dara man sama bopp li ma andi moom lay suur sama entraînement doy ma sëkk li ma andi si li ma andi ay ñaan doy ma sëkk mais nag am na mbër yoo xamante ni moom wax dëgg yàlla dañuy sóor nit ki de carrément. Valdo ban tànk lay jiital ndi joor wala càmmoñ. Valdo est-ce que xam naa ban tànk lay jiital. nga jël Valdo mu doon xale bu mën a bëre xamoo ban tànk lay jiital. yàlla xam na ne xaw ma ban tànk lay jiital. billaay comme li gars yi def ni di seetaan vidéo sama du ma ko def di am combat ak mbër nii dem tàppe si net bi di xoolay ay combat am Valdo de wallaay lazim yàlla rek moo tax may wax combat ba mu taxee ba léegi tàppeegu ma turu Valdo pour xool ko si net bi mënuma laa ban tàngalee jiital. loolu ci ci ci ci professionnalisme la bokk parce que ngay bëreeg mbër xamoo ko wala xamoo yan qualité lay bëree nga kii ko est-ce que xam nga ni bal Valdo deux pieds la ñaar yëpp lay jiital. waaw loolu kay baax na amul benn problème. bu ko neexee jiital ndi joor bu ko neexee bi jiital càmmoñ. Valdo di ndaanaan wax naa la ka nee naa la ndaanaan la la. yëpp lay mbotee. day mbotee gauche di loolu kay neex na. <laughs> loolu kay neex na mais man moom manuma laa bii lay jiital wax dëgg fa yàlla yàlla rek kaa tax may wax loolu kay man kay loolu la bëgg man dama bëgg ñu tegal man daanaan boo xamante ni su ma ko daanee rek ñu ne cum. ban tànk jiital ndi joor wala càmm. man mi looloo ma jaaxal nag man yaakaar naa droite lay jiital de. droite mooy joor. ma waa xam ay ndi joor. droite mooy bii gauche mooy bii man damay teg ñaar mais yow sa yi nga bëre yépp amul benn boo xamante ni tànk bii nga jiital tànk ndijoor bii ngay jiital. noo goos laay jiital. arène. bi dee làmb ja góos laay jiital mais damay bëre ñaari tànk yëpp man deux pieds la waaw. loolu tax tey nit man bu naa may deux pieds gi man man non man tànk boo teg rek arrangé na ma. te boo bëggee te dangay may mooy comme ni ma rek am nga nit ki li ngay def boo ko mënee. nit ñi dañuy yaakaar ne da ngay maye fekk mayoo man ni may taxawee noonu aw ma dara ma siy maye maa ngi si sécurité bu baax léegi nag ñiy toog di seetaan dañ naan kii da day maye tànk bi ak ni mu siggee xam nga yooyu dama si bàyyi xel sax après ma gars yi di wax naa man ni ngay siggee sa tànk bi nii mu ne pourtant si bu baax laa ko teg. yaa ngi brisé ma xoolee combat bi li ci ëpp mooy da nga ko doon sexal tànk bi. waaw maa brisé damaa taxaw jonn damaa taxaw moom damaa jëloon di sama xeex wane sama bopp mais xam nga bi ma dóoree gauche droite rek mu daw capté ma sol ma naax. xam nga foofu la yàqee affaire yi ma daw jàppante ak moom bëre ak moom mais combat boobu moom dama jëloon décision taxaw faayet ak Brésil mais nag comme te noonu la bëggee woon affaire bi ma ne naa bëre rek. ndam yi nga am yëpp ba ndam moo la ci dàqal boo xamante ne keroog bi nga tëddee yëg nga ni tey daal bëri naa bëre bi xeex xeex bi am ndam bi. super jamono boobu moom wax dëgg fa yàlla mooy combat bi nga xam te ne na ma xaw na maa rey nag. super jamono eh, ma si daj. mën di dóor nit ki te mënoo fayu noonu la waroon def te en plus maa ngi moo ngi bëreek man di xeex ak man dóor ma dóor yu metti mais lépp rek maa ngi ànd ak ak calcul di maîtriser combat bi ba kër yàlla may ma si ndam. non daf maa jekkoon xam nga daf ma mag si laam xam nga combat woon nekk xam nga combat bu rëy si man ak Bruce Lee ni mu doon def ku tegle ñaata combat lan wax ay ay ay quinze combat daanuwul tey ma ñëw jool ko xam nga daj moom lu metti loo xamante ni ba jëm bi tey jii fu ma tourné sa danaa maan cëm su ma dajee nit sa danaa maan mbot ma mbot super jamono combat boobu moom ma gën a neex wax dëgg yàlla. stade Amadou Barry la woon. Amadou Barry la woon Guédiawaye. mbot bu rëy mbot bu rëy. boo xam ne woon ca tribune ba toog. ko defee saison boobu yëpp dañul. waaw combat boobu daal na ma trop. ko jëlee nag moo garaaw combat ba. diggi dooleem macha allah mu nekk ko baa nag ban bëree fajar moo ma <laughs> mu ñëw fi ñu toog waxtaan xam nga béggee. xool eh. ba dara newoon ci amul benn problème borom baax la. ñu borom Italie. di ko siyaar bu baax a baax a baax defet nag ban defet moo la gën a metti defet bi ma gën a métti Moussa Dioum parce que xalaatu woon ne Moussa Dioum mën na maa daan xam nga rek làmb moom li naan renum ñàmb la fu ko neex lay damme gëm naa ko waaw moom nag moo ma gën a jokk tax su may bëree am màgget sax dinaa ko jox cër bi ba mu mët sëkk combat boobu daal laa xam ne. combat ni ma ko préparé ma ñëw Moussa Dioum daan ma si li ma gën a mane ca xabal <laughs> bu garaaw. xeeboon da ngaa xeeboon Moussa Dioum. Moussa Dioum xalaatu ma mu daan ma mais nag noonu la loolu moo lay def mbër waaw. sa relation yow ak mbëru caare yi. Mhm. waaw mbëru caare yi ñoom lépp jàmm vraiment man fàtte naa sax ba nuyu ma mbëru yi sama grand frère yëpp ñi nga xam te jiitu si làmb ay Xaadim Ndiaye 1 Xaadim Ndiaye 2 hmm, ay Ousmane Diop. Issa Pouy Baye Mandione hmm, vraiment maa ngi nuyu ñëpp ak sama rakk yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñëpp maa ngi leen di bége mais lépp jàmm quoi. Hmm. combat yi ak Valdo da tukki wala fii nga koy préparé. non non fii lañ koy préparé man combat ma suma tukki préparé ka man sama combat yëpp fii laa ko préparé waaw ah, naa bëre ba pare nag dem waaw. Ah. ñoo gisee wasaare làmb ci làmb. Ah, Wassare Lamb dañ leen di béggee rek di leen wax ne ni ngeen seen bopp yéen a ngi koy yéen a ngi koy guyoo ndax yéen a ngi Wassare Lamb ji eh, kontaan nan bu baax si Wassare Lamb ndax yéen a koy dundal quoi. Mhm. Lamb lan moo ko mën a yokk ak lan moo ko mën a wàññi parce que boo waxee ñu ne la communication bi moo tax sponsor yi daw mbër yi da nga leen di jox blouson jour làmb ja jot ñu war koo sol naan non du ko sol parce que dafa am ay gàllaaj yu may laal ak euh, ngeen am signature contrat mbër ma war a ñëw kenn ki naan la damaa dem Fatick wala damaa dem Joal wala sëriñ Bema woo ñëwul loolu bokkul ci luy yàq làmb. waaw loolu moom du yoon wax dëgg yàlla sponsor tey bu la ko fayee yow mbër mi yow yaa war a sol sponsor bi. waroo ñëw rek nga sol sam njaxas fee ñëw taxaw loolu wax dëgg yàlla du yoon man rafetlu ma ko parce que yow lañ fay xaalis bi kon da nga sol sponsor bi en plus man li ma jàpp ne làmb ji li ko xaw a suuxal ni muy mbëri nañ jëlante seen biir ñu bëri ñu mayante loxo mais tey buñ ko bëggee jàpp si benn lobin rek non non loolu loolu du avancé loolu làmb na mbëri mayante loxo ñu yéegal gaa yi gaa yi bëri sponsor yi mën a ubbeeku parce que tey mënunoo gis xam nga trois ans wala cinq ans yoo xam te ñooy bëri seen biir loolu tamit sponsor dañuy dem courage le bras en plus ñi communica ñi communiquer comme yéen ñi parce que dañuy dégg ñu naan làmb ji suuf na làmb ji violence xam nga yooyu tamit day gën a tiital nit ñi day gën a arrière loo nit ñi xam nga yooyu tamit te suuf bi tamit nañ koy bàyyi ñu ñu ñu indiwaat ko parce que di waxante nii di suuf xam nga di yëngal. xam nga di xaacunte dasee bokk dasee bokk loolu fa mais boo ko defee rek ñu ne kii dafa réew wala boo taxawee nangam wax naa nangam bari ka sëriñ nangam ma koy daan ñu ne ah kii naagu na te yooyu yëpp xam nga mooy xumbal quoi waaw tey boo jàkkaarloog sa moroom nii war ngaa mën a tàngal ne ko dama lay daan par la force xam nga na nañu nit bàyyi xam ne làmb la ñu seetaan hmm? xam ni Ameth bu ko waxee ci gëm-gëm la ko teg ak fi mu la quoi loolu mooy aar bi. Hmm. bari na ci mbër moo xamante ni da ko daan wax ndeysaan ma koy nuyu au passage ku mel ni Yaxya Jóob yi ki ni wax ko ñu jël wax ji waxee ko neneen noo xamante ni génn na làmb waa te loolu mooy neexal sport bi quoi man de lool laa jàpp man de damay kontaan sa nit taxaw xam nga parce que làmb lépp kañu la xam nga ñëw bàkku fii xam nga ñëw yëngal xam nga fëgg sa dënn ñëw jàkkaloo ki nga war a jàkkalool nekk barke sëriñ nangam dama lay daan mais xam nga nan nan bàyyi yooyu yëpp ñëwaat quoi xam nga ñun di bëgg fee dindi ay waate si sëriñ xam nga ay def naa nii daw taf naa mbër mi dënn yooyu tàng andiwuñu ko fi affaire bi neexaat xumbat waaw ah, làmba dina gën a suuxle waaw. Amadou bi sax cat li. waaw nga bokk nga ci mbër yoo xamante ne avant CNG di nangu président daan nga ko indi ci làmb. dëgg la waaw parce que mbër yi ko fi njëkk takk de mën na maa ne si laa bokk. parce que su ma juumul deux mille deux mille six deux laa njëkk a bëre ak. Euh, Guinée. léegi mu dóor ma fii boo xoolee si kaa baa ngi fii quoi fekk damaa mattoon sama sama tuñ bi bi ma dóoree nag mu bënn. combat boobu nag su ma si jógee rek laa dem fi ma doon boxoo mooy ASECNA euh, virage mooy almadi quoi ASECNA bi na foofu si la ne ma wutal prothèse ah si laa ko wute di ko indi parce que boobu gars yi man na maa wax ne man rek maa ko fi doon andi de maa ko doon seex digal yi ba tey ñu accordé ko mu nekk mbégte parce que loolu yëpp protéger sa bopp la. tey bu fekkoon am naa ko sama fii du bënn ba ma ko takkee ba léegi nag di nga yëkku mais nag si gémmañ du toj. Mhm. dina dimbali say bañ quoi. Mhm. kon ko warul takk yëpp nañ koy takk parce que baax na ci mbër. Ah, bien sûr gars yi entraîner surtout. waaw di ko entraîner mooy yoon. gars yi moom ñoo ngi koy takk fi mu ne nii. Mhm. waaw. Ameth li amoon ci waxtu ñu ngi ñuy xamal ni jot na euh, lan la nga buggoon wax te laajuma la ko nga bëggoon ko wax. Ah, waa Cegal nag lutteurs yi nekk Thiaroye Géej yëpp ñu jàpp si ak fan si club bi hmm? fépp sama supporter nekk rek maa ngi lay béggee di la wax ne am naa combat na si ñëpp jàpp nu ñaanal ma vraiment kontaan naa trop si waa Tasaare Lamb kontaan naa laaj ngeen lépp vraiment am naa mbégte bu baax. jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Ameth Deme wax te làmb noonu la muy waajal bis bu rëy naa ko de Baye Ndiaye Ndour suñu président écurie caara yi léegi nag caara yi écurie yëpp boole na leen muy écurie caara yi Kaver caara yi géej yëpp léegi benn écurie la. waaw ñoo ngi koy nuyu au passage vraiment ay maa liggéey siis euh, maa ngi béggee ñëpp ñu bokk si staff bi Baye Ndiaye Ndour jëte leen jaajëf. loolu lu am solo la ndax caara bi ñu boole woon doon benn buñ duggaan ci làmb ñëpp dañ leen di maytu ñu daan am ay ndam yu rëy rëy lii li nga xamante ni moom la Ahmed dem wax bokk na ci lu luy neex làmb làmb tey mbir la boo xamante ni sa gox ngay représenté fépp foo dem drapeau boobu ngay yóbbu mbokk yi kon noonu lañ dalaloon ki nga xamante ni mooy Ahmed dem muy waajal combat bu bu mag ci digganteem Valdo bu pikin dinañ dem seeti Valdo xool nan lay waajee combat moom ak Ahmed dem lu 8 mars la bu leen ko fàtte.